tout à l'heure dama dégg ci say wax es en euh, prison ñaata yoon nga def prison grand. man bon. ak lan moo la fa gën marqué. deux deux fois deux fois li tax ñu naan prison et puis en fait coup, ma ko sax prison parce que en fait j'ai pas fait beaucoup de temps là-bas ah. Mmh. donc euh, li ma fa gën marqué mooy biñ bi may 2012 biñ may njëkk a arrêté. Mhm. dama fa xamante ak boy bu tudd Assane Diop. Mhm. ñu bokk fenn même place bu ñu bu ñuy man ak hadim ak Khadim Lo. Mhm. Khadim Lo papam rakku Badaloo la. Khadim Lo mu ngi Italie actuellement ñoo bokkoon benn chambre chambre 14. ok ak ñoom Paul. Assane yàlla def ñu nekk ay xarit bi ma génnee may toppatoo ñoom ni ñu génne. Mhm. yàlla def ma toppatoo loolu parce que ñoom ñu ngi leen jàppoon ci ay événement yaanamaar ci événement wu 27. 27 euh, juin yi événement yu metti woon talaatay ndeer mhm. événement yooyu nag ci lañ jàppoon euh, ci lañ jàppoon ñoom Assane Assane ñu ko jàppee yëmbal xaadim ak yeneen booy ñu ngi leen jàppe woon xaadim ñu ngi ko jàppe woon euh, yaraax yaraax yeneen booy ñu ngi leen jàppe woon feneen ñu ngi nekkoon au nombre de 17 am na benn booy sax bu mu dee si jeel bi mhm. mais Assane moom moo ci gën a marqué parce que Assane dañu garder une relation ba bi mu jabar am ci taw man lako ko ok donc euh, waaw. Assane kon dafa am no doon jëflanteeg mom ci kasso bi. en fait Assane c'était non seulement benn yaanaamaaris la boo xamante ne biir prison la ko xamé ñom dañu adhéré won ci philosophie Yana yaanaamaar sans xam ñu. nekkoon ci combat bi. ñu japp len ci jeel bi tej len ils ont fait ay 2 ans et quelques hein. ta xaw mm-hmm. nañ fa. teud nañ teud bu yàgg hein. mm-hmm. parce que dox bi sax pour ñu génn c'était très difficile. en 2000 ay 2013 la boo yoyu génn quoi.